jërë ngeen jëf politique bi moo poñe yéene kay l'observateur xëy di jàngat ak càmbar candidature yu bari yi tàmbale juddoo ko jebbi ci mouvance présidentielle bi loolee ginnaaw bi Macky Sall tànnee Amadou Ba ne candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar ci la Aly Ngouille Ndiaye génn ci gouvernement bi fas yéene jël yoonu boppam l'observateur nañu démb it dégg nañu Mame Boye Diao mu déclaré candidature tey lu ni mel ñoo ngi koy njoxtu ci Abdoulaye la am ndax dafa bokk ci ñor ak ñaw gi ab politicien baaxoo l'observateur mi ngi ciy waxtaan ak docteur Pape Fara Diallo bu université Gaston Berger ba Sarr ak Pathé Mbodj di journaliste buy gëstu ak di xeltu ci politique bi ñoom ñaari kàngam yooyee yéenekaay bu groupe Futurs Médias bi laaj na leen nit ne ñi bokk ci mouvance présidentielle bi bu noppi bëgg a fel seen yoonu bopp doon candidat li leen ci mën a fekk ne avantage ak li leen ci mën a fekk ne inconvénient fipp gi am ci waa kër Macky Sall lii li mu bëgg xam ba di ko laaj ci xëtamu njëkk moo di ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao kan moo ciy topp ñu topp yéenekaay yi ba ci journal Le Témoin fekkaat fa beneen laaj bu ni mel mooy ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao kan mooy taxaw défier Macky Sall ndax ak fippandoo mu di rébellion généralisée deesu majorité présidentielle bi ne journal bi mi ngi ñuy wax ne ñoo ngi waxaat yeneen départ yu war a ci moom Mame Boye Diao mu ngi bëgg a tege ci yoon wu bari ay risque ci moom li koy firndeel Vox nee nañu mooy déclaré na candidature wan Macky Sall ne àndul ci tànn gi mu tànn Amadou Ba ba tax ñu tàmbali koo takkali moom la ñuy def kii di Mame Boye Diao ndax midi la dajale aw ñoñam doon candidat deux heures di quatorze heures Macky Sall dàq ko nangu caisse des dépôts et consignation di CDC gam ko joxoon sursoi nañu Diao dafa toog ci bool bi bëgg a xajamal ndab li Macky Sall seppib loxom Mame Boye bés bi le jour moom bind Mame Boye Diao coalition pour un Sénégal nouveau gi mu ne moom la bëgg a demee ci élection yi bés bi le jour mi ngi ñuy wax ne coow am na ca ndax Wardini nee na moo ko moom Amadou Ba dafay gagné élection présidentielle 2024 ci premier tour bi ndax bilan bu Macky Sall moo koy xàllal yoon wi moom Macky Sall it mooy doon directeur de campagne du samay wax Abou Abel Thiam moo ko wax ci waxtaan yi mu xëy séq ak waa journal Le Quotidien mu dolli ci moom Abou Abel Thiam ne kii di Amadou Ba li mu war def jamono ji moo di démissionné tekki ndombal tànkam nu mu gën gaawee ci poste premier ministre bi mu yore ki Wade weesoo li ñu koy gis mu koy bind ci réseaux sociaux yi mu di ci Twitter ci Facebook amuñu leneen lool gis nañu Karim Wade def ko lu mën dalal xelu militant yu Parti démocratique sénégalais yi ci ak ñibbiseem te moom Karim Wade mooy ki war a joxe exemple bi exemple bu Parti démocratique Sénégal ak li leen daloon ci élection présidentielle yu yi moom la anki dina kay jël ci waa parti gis na ne ñoom waa Pastef bu ñu moytuwul li daloon waa kër Abdoulaye démb benn bal ci dara ci max amical bi ñu doon football ca Diamniadio record yéen a kay bind ne nawoon fa woon tarif habituel seen defetu démb bi record nee nañu mooy ñeenteelu defet bu Aliou Cissé diggam waa Algérie stade yéen a kay dañu fàttali moom it ne defet bu démb bi mooy defet à domicile bu njëkk bu Sénégal ci fukkeet ak ñaar yi ñu weesu léegi ko nañu entraîneur bu Algérie di Jamel Belmadi pëtamatina Aliou Cissé ci poussière bi abonné leen ci su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci